asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu ci li ñuy wooyee actualité de la semaine maanaam li nga xam ni actualité yi gën a fës ci biir semaine bi ma ci ànd ak ki nga xam ni moo di Mati Sarr ñaa Mati Sarr na nga def. maa ngi lay fay euh, Binta di fay itam di nuyu ñëpp ñi nga xam ni jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel si biir seen kàddu point sn. xam naa dinaa dellu si waat ci yow ci kanam waaye dañuy woy ak li nga xam ni moo di actualité yi gën a fës balaa ñi fay gën a dugg dañuy jaale ñi nga wa RTS ci desew ki nga xam modi di Moïse Androis Ambroise Gomis moom na nga mi ngi nekkoon ancien animateur de la RTS 1 vers les années 90 ñu jalé jaale tamit di jalé wa RTS bu baax bu ñu jugee ci loolu ki nga xam ni moo di le président de la république moom na ginnaaw bi mu euh, bëggoon ñu ubbi école yi le 2 juin dafa mujj gi nag dañoo dem ba ci mujjantal gi ñu dellu ci ginnaaw ndaxte dafa am yenn cas yu am ci biir fële ca Ziguinchor waaye tamit am na yeneen yoo xam ni dafa laxaw si biir ki nu amal euh, reportage moo di El Hadj Moundou ginnaaw ba kii di njiiti réew mi président Macky Sall jëlee ab dogal ànd ci ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi di Mamadou Talla si lu jëm ci ndongo daara yi ak seeni jàngalekat delluwaat ca école ba ñu jàppoon ko ñaari fan ci weeru juin bi ñu nekk mujj nañ ko fomm ba beneen jëmmi jamono li waral nu mel nag mooy gannaaw ba ñu waajalee ñii di jàngalekat yi ak lenn ci euh, ndongo daara yooyu le ngir ñu dellu ci barabu jàngukaay yi ci gox yu fasantikoo ci réew mi si lañ nemmeeku juróom benn ñu amee doomu jàngoro ji fale ca diwaanu Bignona nekk ci région bu Ziguinchor gannaaw ba waa kër docteur sayto lii di seen wàllu wér yaram waaye li ñu mën a jàngat ci mbir mi mooy ak làmbatu gu metti tatar ci ci lenn ci kilifa yi ñu koy doxal saa su ne ba moo waral li nga xam ni mooy euh, wax waxeet far soppeeku aw way ci réewum Sénégal ñu ngi lay jaajëfal El Hadj Mamadou Digal ginnaaw ki nga xam ne moo di président de la république ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur éducation bi jël nañu yooyu la ndogal ki nga xam ne nag moo di ministre de l' intérieur monsieur Ali Nguy Ndiaye waaye tamit monsieur Oumar Youm ne moom moo yore wàllum dem dikk dikkat fii ci biir Sénégal ñoom nag jël nañu ay ndogal ku ci mel ne Ali Nguy Ndiaye nag moom nag jël nañ ndogal wàcce li nga xam ne moo di couvre bi nga xam ne daf daan tàmbali 21 heures moom nag yóbbu na ko

waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbaines yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. ñoo yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre euh, salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seeni i activité ci casino yi ñoom aussi. danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi gouvernement bi comme ni mu ko dalee def boobu ba néeg ni mi ngi continuer di déglu population yi pour faire ba relance économique bi nga xam président wax na ko ñu dund ak virus bi te euh, Euh, jël suñu matuwaay ñu continuer ci. ginnaaw Aly Ngouille keneen ki nga xam ne moom na nga di joxe na ay ndigal mi ngi nekk ki nga xam ne moo di ministre Oumar Youm comme ni ma ko waxee woonu sànq moom nag moo yore wàllu dem dikk bi fii ci biir Sénégal moom nag li mu xamle mooy que ni transport interurbain yi mën nañ koo reprendre waaye moom dafa am ay mesures yi nga xam ni da koo mettre pour ñi nga xam ñoo nekk ci garage waaye tamit ñi nga xam ni ñoom ñooy waaye voyage yi ñoom ñu mën a respecter yooyu les mesure ngir. ñu mën a li nga xam ni euh, pour ñu mën arrêter propagation feebar bi ci coronavirus ñu bàyyi la ngeen cadeau. kàddoom. dañuy jàpp ne war nañu mën a reprendre les le, les activités de transport interurbain à partir de dimanche mais loolu ministre de l'intérieur dina jël ndogal bi dina jël arrêté bi su ko jëlee nag ñun dañ ko war a ak yeneen mesures yoo xam ne day tax même bu ñuy reprendre dañuy reprendre ci sago reprendre ci prudence reprendre en tenant compte te feebar bi mu ngi fi te feebar bi warul jaar ci transport warul jaar ci personnel de transport warul jaar ci usager pour law ci Sénégal donc loolu moo tax d'ores et dañu ne kuy dem ak dikk ci gare routière nga war a dem ñaari gare routière la ñu xam ci région de Dakar yoo xam ne nii mooy nekk les gares routières officiel pour le transport interurbain mooy gare routière Baux Maraîchers yu Dakar ak gare routière bu Rufisque ñaari gare yooyu ñoom ñoo officiel mais xam nañ ne am na pratique bu am ci biir transport moy liñ ñu tuddee les horaires dañu am ci quartier yi mooy transport de proximité yooyu aussi dañ ko identifier ak les acteurs ba nga xam ne tey du foay taxaw rek bu war a dem Thiès wala Saint-Louis wala Diourbel fu la oto fekk nga dugg fa déedéet donc gaar yooyu nga xam ne c'est des horaires ak gaar officiel yi ma wax nii léegi dinañ ci waxtaan tënk ko ci këyit ba ministère de l'intérieur xam ak ministère des forces armées que léegi fii moo nekk point de départ fii tamit moo nekk point d'arrivée nga xam ne kuy dugg ci oto dinañ la xam dañ lay identifier loolu mooy manifeste am sa numéro téléphone am sa personne contact boo xam ne nii bu jëyee amee wala musiba wala information bu indispensable ci kooku la ñuy jaar pour wax ko donc loolu aussi gaaru ceer yi war nañu sàmmanteeg moom bu baax a baax a mbokk mbokki internet di ñoo ko déggandoo waaye ki nga xam ni moom moo di euh, Assane Diouf moom nag dañu ko fekkoon fële ca këram ci semaine bi ñu weesu arrêt daal di koy arrêté waaye bi ginnaaw bi nga xam ne arrêté na moom nag dañu ko mujjoon defee rek ki nga xam ne moo ñu amal jàng moo di euh, Mati Sarr Assane Diouf nag nekk activiste boo xamante ni kenn dootu ko présenté ñi nga xam ni euh, ñooy internet yi ndax euh, boo koy xool euh, Assane Diouf bokk na ci ñi nga xam ni daanaka liñ leen di bàkkee mooy mën saaga te itam ñeme koo def ci li jëm ci réseaux sociaux yi. si loolu noonu nag ñuy fàttali ni ki nga xam ne mooy Assane Diouf 8 janvier 2019 bii ñu weesu la daal di génnoon prison waaye itam jamono ji boo xefee mu daal di fay dellu li waral li ni mel nag mooy démb ki nga xam ne mooy police centrale. dafa daal di dugg biir këram daal di koy arrêté démb ci altine gi ci ay booru 6 heures du matin la police centrale daal di wàcc ci ki fi nga xam ni mooy kër Assane Diouf li waral li ni li tax nag mooy Assane Diouf mi dafa daal di def euh, benn direct si page Facebook am benn vidéo boo xam ni toll na ci 9 minutes 37 secondes si vidéo boobu noonu nag ñu daal di gis ni mu ci doon wax ay kàddu yoo xam ni tegginewul dara jëm ci ñi nga xam ne ñooy autorité dëkk bi rawatina nag ki nga président Macky Sall. vidéo boobu nag ginnaaw bi mu koy def li ko ci taxoon a jóg mooy daal di naqarlu ñàkkum ndox bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci week-end bi ñu génn fii ci banlieue dakaar bi rawatina ci diwaanu Pikine. ki nga xam ne ñu ngi koy bàkkee insulteur public numéro un mooy ki dàq saaga ci Sénégal moom boo xefee dinañ ko daal di toppee ci lu jëm ci offense au chef de l'État. Eh, ginaaw nak bi nga xamanteni police centrale dal dina ñew fofu noonu ci kërëm Assane Diouf mi dafa bañono ubi buntu neegam dafa bañono ubi buntu kërëm loolu mo tax nak ba police yi dañ ko daal di mujjee dajji biñ ko dajje nak ñaar ci ñom daal di dugg ci biir daal di koy plaqué takal ko ay monot dal di koy jël daal di koy yobbu ñi fàttali rek nak ni tollon na ci 1 an ginaaw Assane Diouf biñ ko fi tejé won ñaari atu kasso yo xamanteni ni ñenti wéri rek lay daal di tëdd ngir li eh, taxoon nak moy li nga xamni mooy injure publique yi nga xamante ni mooy saa su ne rek leen koy toppee muy saaga yi muy faral di amal jaarale ko ci benn système informatique ak li nga xam ne mooy jàllale xibaar yoo xam ne du dëgg ak daa xoqatal benn agent boo xam ne mu ngi daal di nekk ci euh, liggéeyam mu nekk nag pen boo xamante ni nag ginnaaw laata ñu muy taxawu jàkkaarloo procureur bi fekkoon na mu daal di koy tëdd loolu moom moo taxaw ñu daal di koy bàyyi waaye laata ñu ko doon bàyyi ñu ngi ko doon xamal ni lu jëm ci plateau télévisé yi mooy toog di wax ak débat public yi lépp dañ koy daal tere li nga xam ni tam mooy daal di jëm ci eh, toog si réseaux sociaux yi tam dañ ko ko doon tere li nga xam ni mooy wanewu ci réseaux sociaux yi itam dañ ko doon eh, tere ci diiru ñetti at Assane Diouf loolu yëpp waru ko ci woon def li nga xam ni tam mooy si si psychiatrique mooy comme ñi saytu ñi nga xam ne seen xel yi eh, wérul carrément itam daal di nañ digale woon Assane Diouf ngir mu daal di koy amal waaye nag lu ci am ba rek fii ak mi jàmmaarloog procureur de la république ñi nga xam ni ñooy wa seen kàddu lu ci mënti waddaat rek ni ki xibaar dinañ ko daal di jottali saa su ne ñi nga xam ni ñoo ni bàyyi xel si biir seen kaddu point sn Maty Sarr ñu ngi lay jaajëfal bu baax ba tey ñu ànd ak yéen ci coronavirus ba tey fële nga xam ni moo di région bu Matam nag doonoon région bi nga xam ni corona ba yeggu fa woon waaye ginnaaw ci lundi bi ñu weesu ñoom dañu enregistré seen premier cas ci benn waay su góor boo xam ni moom dañ koo testé positif waaye fii lañ ko defee woonu test bi moom nag dafa dellu fële ca département bu ñuy wooyee Oude Oude Laye ñu bàyyi ki nga xam ni moo di Amina Cissé indi leen ay leeral. guleet région bu Matam enregistré kawam bu ñëkk bi mbas mi tambalé ba légui mu nekk ab commerçant bu ñu ràññee ñoo ngi ko testé ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi passé ci centre bu santé bu Ranérou bu ñu sukkandikoo ci préfet bi test yi ñu ngi ko jotaamal foofee ci centre bu Touba waaye dafa ñëw positif mu mel ni autorité de santé yi jot nañoo identifier fanweeri nit yu nga xamante ni jot naa am ak ñoom ak contact mu nekk ab cas asymptomatique ba tey préfet di ñu xamal ni amul benn risque de contamination waaye li ci gën a doy waar mooy euh, commerçant boobu noonu mu ngi doon euh, amal ay dem ak dikk entre département bu Ranérou ak li nga xamante ni moom moo di ville de Dakar ngir a amal li nga xamante ni euh, moo di ay activités. jaajëf Amina Cissé waaye ci wàllum aide alimentaire ba tey li nga xam ni moo di coow bi dafa gën a bari fii ci Sénégal keroog na nga dem nañ fa li nga xam ni moo di ca Grand Médine nekk ci commune bu Padoa ñoom nañ li xam xamle mooy que ni aide alimentaire boobule dafa am retard bu baax ki nga xam ngeen a ki nga xam ni moo di chef de quartier ba ci micro élage moom la ci bu état bu Sénégal jagleel lii di askan wi seen loxo jotul seen gannaaw ak coox gu metti lañ ci nemmeeku ci séddale bi li koy firndeel mooy askan wa yewoo ca Grand Médine démb ci àllarba ji ñetti fan ci weeru juin bi ñu nekk lañuy door a jot seen wàll waaye li ci yéeme ab ceeb kott lañu jotagul ba ma waral ñuy xaarandeen yi li mu war a àndal lu ci mel ni suukar saabu ak li di macaroni ngir ñu mën door lii di séddale gi Abdoulaye Ngom délégué de quartier bu Grand Médine 2 di ci indi ay leeral. jot jëkk nañu camion bu def 40 tonnes 40 tonnes il 800 sacs de riz deuxième camion bi def 42 tonnes y a 900 sacs de riz troisième camion bi def 32 tonnes 500 moins 650 sacs de riz Pour calculer il da lay jox 2355 sacs tonnage bi nak day 117 000.

ay milliards jox ko ay doomu aadama ñu ñu jënd ay dund loolu depuis lors mais bu ñu toogee ba tey de peut-être dafa carence ci biir livraison yi waaw war carence bu rëy te loolu day parce que ñun ça fait trois mois ñu ngi ñu ngi inscrit di bind sous préfecture di dem mairie, ba lépp li yemb fu ñun ñun mais nag nous, sommes superviser ñuy joxe ceeb bi dañuy bu lépp ñu nag ñu doo ko ñu doo ko joxe mais dara ñëwagul aussi ñu ngi xaar suñu maire am na lu mu lu mu jënd ci budget boppam mu nga ci mairie bi madame Wardini maire de la ville de Dakar am na lu mu indi suñu mairie ñu ngi xaar bu fekkee lii complet na maire da indi loolu mu yore da ko indiwaat boole ko fii ñu mun a dem ñu joxe ko ba waaye lii di séddale dund boobule ñi nga xam ni jotu nañ leen jagleel lii di bourse familiale bokkuñu ci séddale bi kii di madame Fatou saajo nekk nu gox ci quartier Grand Médine 2 di ci indi ay leeral. ñu dañoo maîtriser bourse familiale bi dañ ciy liggéey ak waa préfet sous préfet ñoom lay jaañ dañoo maîtriser ñëpp man gox bi ma neex su ma duggee ci kër rek xam naa ku am bourse ak ku amul bourse Je suis maîtrisé feuille de l'a yi Je suis ko les bu baax koy jang di ci liggéey ak Je di waxtaan ak de femmes ñi am bourse yi dañuy waxtaan ak ils di leen sensibiliser di leen civil moo tax dañoo maîtriser bourse yi ñun amuñu ci difficulté boobu. ñoom dañoo am seen quota à part. waaw ñoom bokk ñoo euh, kit yi ñuy séddale ci quartier bi. waaye lu ci mën di am yéexantal gi ñu nemmeeku ci séddale dund boobu lee dafa mel ni bukki buy wër di matte ndax la xew sa Grand Médine moom la ñu nemmeeku ci yeneen gox yi ñu war a amalee séddale dund boobule. ba moo tax askan woowu woowule ni lott nañu tàyyi nañu di woote wàllu ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi balaa béy di wéy mbuus. ginnaaw bu ñu jugee foofu mbokki internet di tey nag ci samedi bi moom moo doon ni nga xam ne moo di ñetti weer bi nga xam ni lii di coronavirus dugg na fii ci Sénégal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore technique bi ànd ak ministère de la santé amaloon nañ tey ji nga xam ni seen bilan waaye dañ leen di bàyyi ki nga xam ne moo di musa Moussa Seydi moom nag li mu xam xamle mooy que ne li nga xam moo di chloroquine bi am na effet bu baax ci maladie buñ ko seetloo sax samedi tey bi nii li nga xam ne moo di nombre de guéris 236 ñu bàyyi leen ngeen teewlu ay li am coow rek mooy hydroxychloroquine azithromycine bi coow bi bu muy bari nag journaliste yi ñu ngi ma doon woo tout le temps ak lépp waaye li indi woon coow bi yëpp jàng naa ko xam naa li si nekkoon jarul perdre une minute te li si li si jot ñëw yëpp won nañu ko comme ñun ñu ngi gëstu nag li ñuy gëstu lañuy jàpp ba gis leneen. ñun loolu pour nit ñi ñu xam ne looloo tax mu bëgg a insister rek si loolu donte ne du loolu rek moo si am solo du loolu sax moo si ëpp solo dañ ko wax ba leer naañ si gëstu bi ñu gëstu nag dañ ko def si malaadu hôpital Fann malaadu jam ñaajo ak dalal jàmm parce que recherche la recherche dafa diis te métti def ko Sénégal yëpp dafay jafe si ñun de toute façon chiffre Sénégal yëpp am ngeen ko ak docteur Bousso donc loolu kon warul nekk problème gestu bi ñu gestu nag def nañ ko ci téeméeri ci euh, juróomi junne ak euh, juróom fukk ak juróom-ñeenti malade yi nga xam ne euh, ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñett yi ëpp nañ fukki at ak ñaar âge bi nga xam ne mooy âge li ñuy wax âge médian 50 pour cent au moins si ñoom 33 ans la ñu am waaye nag am na ñoo xam ne 4 semaines lañu am am ñoo xam ne 85 ans la ñu am kon ñëpp bokk nañ ci njàngat bi ñu doon jàngat góor ak jigéen yi nag ñoo ci yem daanaka juróomi nit yoo jël am na kenn ku ci am sooxaale beneen feebar kon nit ñu jàppale loolu ne ku am beneen feebar rek soo ko amee da ngay faatu déedéet suñ la fajee faj la normalement ñi ci faatu tuuti la tuuti la loolu yi ñu jàpp ko nit ñi di bañ a tiit ci loolu soo amee problème nga teel a ñëw dañ lay faj nga wér comme ñëpp loolu moom bëgg naa nit ñi xam ko bu baax. mbokki internautes yi comme ni ñu leen ko waxee woon seen première partie xibaar yi jàll na dañuy dalal ki nga xam ni moo di Maty Sarr Niang ñu am ak moom benn waxtaan bu ndaw rek ci li nga xam ne di mesures yi ñu jël ci Sénégal ngir arrêté li nga xam ni moo di feebar bi di coronavirus waaye allègement bi nga xam ne tamit am na ci ci biir euh, mesure yooyu la mati Sarr Niang na nga def ma lay dellu di la nuyuwaat di bàyyi la nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di mbokki internet yi. ma dellu di la fay Binta bu baax a baax dellu itam di jaajëfal ñi nga xam ni saa su waxtu yi itam jotee ñu ngi bàyyi xel tey ji la nag si biir seen euh, journal de la semaine bi nga xam ni saa su ne Binta moo koy daal di amal donc euh, Binta par rapport ak mesure yooyu ngay wax mi mesure d'allègement yi wala mesure woyofal yi nga xam ne njiitu réew mi mujjee na koo jël si conseil des ministres ki nga xam ne nag mooy Aly njaay Ndiaye ak Oumar Youm daal di koy dëggal ginnaaw bu ñuy def point de presse bi ñu doon amal si bisu alxames bi euh, alors mesure yooyu nag Binta mu ngi dikk si ginnaaw bu ñu nemmeekoo ñaari fan si ginnaaw ni euh, dëkk bi presque daanaka euh, quartier boo dugg rek jeunes ñu ngi manifester di amal ay dox ñaxtu di taali pëna ngir euh, ñu daal di dindi fii li nga xam ni mooy couvre-feu bi ndax nee na danoo sonn si tëju bi si ginnaaw si loolu nag gis nga ni xalif général des mourides génn na daal di def déclaration ci ëllëg sa itam Aly Ngouille Ndiaye ak Oumar Youm daal di génn ñoom it di wax ni voyage diggante dëkk ak dëkk bi léegi dañ koy daal di amal koy yéegal léegi mi commencé 11h ci goudi jëm 5h du matin alors mu nek nak kon phase bo xamné ginnaw buñ ci tolloo ak Binta muy wane ni rek njiitu rew mi dafa wax ni pour Sénégal légui nak wala gouvernement bi sax euh, sénégalais yi ku nek nak légui dañ la mettre face à tes responsabilités manam ku nek rek nga xol ban taxaway nga mëna am ngir daal di fexe ba coronavirus bi ni law bi du jaaree ci yow ngir daal di gën a mën a am ginnaaw ñoom leen bëggoon euh, nguur gi defal na leen ko mm-hmm. waaye Maty nga yaakaar ni mesure yooyu ne fii la ñu toll état bi est-ce que waroon na jël risque boobu parce que ñu ngi dégg ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi ànd ak euh, waa ministère de la santé ñu naan ñu ngi nekk ci risque atteindre li nga xam ne moo di pic bii nii euh, pigu coronavirus ak fi nga fi nga xam ni fa la réew mi toll waaye tamit ñu ngi dégg ni tey ci euh, nombre de cas yi ñu ngi am 4 cas importés tey mesure yooyu yëpp ñu jël ko est que nekku ne dañuy gën exposé Sénégal. mais Binta xam nga nag feebar bi saa su ne Euh, taxawaay bi muy am doo ko mën a maîtriser ndax moom bu tayee mën na la dikk ak ak 80 cas bu subaa mu dikkee la ak 100 gannaaw suba 130 xam nga day nekk mbir boo xam ni ginnaaw kenn mënu koo maîtriser te li njiitu réew ma waxoon rek moom mooy daal di mujjee nekk ni gan goo xamante ni daf laa gane si te xamoo kañ lay dem li gën a rafet li gën rek mooy nga jéem a xool noo dëkkee ak moom alors voyage dem ak dikk bi nag moom Binta tey gis nga docteur Bousso moom it bi ñuy def point ñetti weer ginnaaw bi fi feebar bi duggee ak léegi bu nu jàpp bu nu wax ni ñoom stressé wuñu stressé nan parce que euh, bu nu xoolee cas yi euh, nu muy euh, lawee cas communautaire yi itam waxi noppi diwaanu Ndakaaru nga xam ne boo jëloon téeméeri nit yu feebar juróom-ñaar fukk yi ak juróom presque fii lan nekkee kon day nekk mbir boo xamante ni mën nañ koo comprendre ndax booy xool Dakar daanaka si région yi nekk Sénégal yëpp moom moo ci gën a le moo ci ëpp ay doomi aadama waaye comme mesure yooyu jël nañ ko nag ñoom ñu ngi ragal sax di xalaat ni cas yi di gën ko saa su ne mais comme euh, li njiitu réew mi waxoon rek euh, ak li nga xam ne docteur Marie Khemesse Ngom waxoon na ko xëy na bu ñu respecté geste barrière yi euh, feebar bi lawal bi dina dina mën a dakk ba ku nekk mën a dellu ci la nga nekkoon kon nag instant yi moom xeex bi moom nekkatul xeexu médecin yi wala xeexu état bi kese mais xeexu askan wi itam la waaw Mati mu nekk mu mel ni li nga wax dañ koy firndeel ak li nga xam ni moo di jeunes yi ngi jugoon fan yi yëpp di révolté wu ba démb démb sax ñu ngi yàgg jot ay info que ni ba tey ci yoo Yoff jeunes yi am na si ñenn ñu nga xam ne ñoom génnoon nañu taal ay pneu mu mel nii ba tey ñoom li nga xam ne moo di allegement bi gënalu leen mu mel ni dañu bëgg ñu abandonné li abandonné bien sûr li nga xam ne moo di couvre-feu bi ak état d'urgence. mais euh, Binta nag euh, wax dëgg neex yàlla nag état du dox si état manam di xol lu benn nit bëgg wala ñaar mu di ko dox bayyi li nga xamni mom mo moo nekk njëriñu askanu lëmb mu dako baña def loolu nguur du doxé nonu donc euh, état d'urgence wi mënul ñak ndax fi tollu ni mom quoi qu'on puisse dire on est dans l'urgence manam danoo nekk ci lo xamantani mënul xaar loolu mo taxon sa gis nga Idrissa Seck bi mi naan ndox mi wara fay taal bi wol ñu diko ko ta waxna wax dëgg ndax jamono ji fi tollu la ndax bo xolé ni euh, fièvre bi nu gëna gën a gëna lawé di gëna bëri nit ñi ñu ngi faj gaa ñoom ñu ngi def lu nu mën seen kéemtalaay kattan waaye teewul gis nga ñeen fukki nit ak juróom-ñaar ñàkk nañ si seen bakkan cas grave yi instant yi ñu ngi toll si 17 xaw ma 18 fukk ak juróom-ñett doomi aadama ñu nekk euh, euh, grave yi su yokk rek mën nga xalaat ni euh, ñi ñàkk seen bakkan itam mën na yokku donte ñaanuñu ko mais couvre-feu bi instant yi fi ñu ko yóbbu Binta wax dëgg neex yàlla nag nit lu muy dox lu ko tàmbalee 6 heures du matin ba 11 si guddi bu sottiwulee jotee war nga mën a ànd ak ngëm yàlla dem xaar ba suba nga soog ko lijjanti xam ne li si des moom dootul sotti. yow euh, dugg ci li nga xam ni moo di euh, euh, d' éducation bi mu mel ni reprise yi di mu waroon a am démb ñu ngi doon gis ay rumeur yi doon daw waaye mujjantal ki nga xam ne moo di ministre de l' éducation dafa génn xamale ni rumeur yooyu de moom ma nekkul ni benn yoon ay décision yoo xam ni dafa jóge ci moom la waaye ay li nga xam ni ay rumeur la bien sûr jàll ci réseaux sociaux bi mati ñu dugg ci secteur éducatif bi tuuti parce que ñu ngi dégg ay risques même bu fekkee ni année blanche am na risques yi si topp dafay bëri mati. Mm, euh, Binta waxoon naa ko fii nii bi ma fi invité woon si sa invité si sa journal de la semaine bii nii dama koy dellu di ko waxaat Binta njariñ loo fekkee te booy xool école yi daanaka bi ñu ko tëjeek léegi li ko manqué ñeenti weer bëriwul te bu bëggee jël li nga xam ni moo waroon nekk programme neuf mois ñu ko sauver année bi amaana buñ doon bañ itam am année blanche mën nga am ay résultats yu catastrophique maanaam résultats yoo xam ne daanaka bekkool amee ba tey mosoo ko am ndax du ñëpp ñoo am même capacité mën a kii wa ilaa ñëpp ñoo am même capacité a gaaw a comprendre donc du coup dafa nekk mbir boo xamante ni euh, comme feebar bi dañ ko xaarul woon ñëw na instant yi ñëw na imposé na ay réalité am li gën rek mooy ñu xool nam gën a rafetee la def ko ndax gis nga ouverture des classes yi bi ñu ko bëggee li mu mujjee daal di jur buñ jàppee ni mënoon naa nekk ba ne le 2 juin dañ koy ubbi gis nga eh, kii enseignants yi ndajaloon fii ci rond point liberté 6 bi ngir yóbbu leen ci dëkk yi ni war a dem jàngalee gis nga Matam am na enseignant bu ko am si Ziguinchor itam waxi noppi te benn enseignant bu ko am ñaata ak contact la mën a àndal su fekkee benn classe la yor wala ñaari classe donc bu nu exposé daal xale yi su fekkee ni mën naa nekk mesure yëpp mën nañ koo jël ba nga xamante ku nekk mën nga dem jàngi ba ñibbiwaat te doo yóbbu feebar bi sa kër te itam doo ko jëlee école baax na ñu jéem a xool nu nu def bu fekkee année bi dañ koy prolongé ñu def ko mais si diggante 2 mois mu bëgg see jàng bëgg see def examen mënul nekk te bu ci feebar yi naree am itam eh, enseignant yi di ko am war ko wàllu élèves yi moom mais boo ñu bàyyi mu jàll rek ndax njariñ itam loo fekkee bintar mm-hmm. Mati Sarr xam naa ñu lay jaajëfal rek di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet yi ama Binta yow tam ma dila jajeufal bu baakha baax ci opportunité bi may may sa su ne rek ngir may teewee sa plateau euh, actualité de la semaine bi ni kon yow tam ma ngi lay jajeufal bu baakha baax di jajeufal itam ñi nga xamni ñoy internet yi ni bayyi xel sa su nek rek ci bir sen kaddu point sn di len jajeufal di delu di len waxat sa su nek rek mbekté sen yeen sen yité yeen internet yi moy mbekté sen cadre donc ma ngi len di jajeufal bu baax baax. mbokki internet indi lo na ci sen actualité de la semaine ñu len di jox rendez-vous fi ak semaine. prochaine ñu ngi remercier ñi nga xam ne ñoo nekk ci cadrage bi maanaam bokk ak jéey yi xanaa ñu leen jox di daj rek incha allah seen tàngaram ñeel na leen.